Euh, Ahmed Daara Ahmed Sakhir Lo yow ban impression nga fi jëlee tey ak lan nga fi lan nga lan nga ñu mën a defal seede ci alxuraan ak daara alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin ñi ngi am mbégte dañuy teewloo rek benn aaya ci alquranul karim man daf ma tënkal xew-xew bi yëpp yàlla ni anzala min asamaai maan fa saalat awdiyatun bi qadariha mu ni anzala min alsamaai maan fa saalat awdiyatun bi qadariha faxtamala saylu zabran rabiya yàlla mu ni subhanahu wa taala dama wàcc ndox ci kaw as mu asamaan waaye nag buy wàcc taw bi wàcc ci diggante ñaari xur waaye xur yi dañoo wuute xur wu nekk jël nga ci taw bi la tolloog sa yaatuwaay ak sa xóotaay xol yi taataan alquran tamit ba yàlla dafa leen a nurale ak xur yooyu xur bu nekk walla xol bu nekk da ngay taataan ci alquran lu tolloog la nga attan yàlla dimbale daara Ahmed Sakhir Lo ba juróom ñetti fukki xol ak juróom ñaar seeni xur seen xuri xol yaatu te xóot ba mën a taataan léppi alquranul karim ñu ngi am mbégte lool ci daara ji ak liggéey bi fi am nga xam ni wane na taaru daara taara alquranu karim daara moderne li tax ñuy wax modernisation daara ñu am ci mbégte ba wóolu fee indi suñuy doom ak suñuy njaboot ñu wattu fi alquranul karim ñu wóolu tamit yar bi ñu leen di yar ñu doon ay citoyen réew mi yoo xam ne danañ jariñ seen bopp jariñ réew mi te du yàqal réew mi la tolloog nag léeg-léeg liy am ay njaxas moom la yàlla di wax ne faxtamala saylu zabaran rabia ndaw ndox mi wàcc ci diggante ñaari xur yi dina am nag léeg-léeg ay salte yu mu yenu bu ko amul gis-gis da naan ndox mi kat gis kaw lépp salte la fekk na ndox mi ma ngay liggéey la muy liggéey ci biir suuf si di suuxat ci biir suuf si gis buñ demee ba nawet bi jeex ba ndox mi wane la mu doon liggéey ci biir suuf si nga xam ne mbalit mi dañ koy bale sànni gàncax gi génn ñu xam ni kat ndekete ndox mi lam doon liggéey ca biir suuf sa la waaye du woon ca kaw ñam bi yëg gàncax gi génn ñu xam ni kat kon lii mooy lu rafet la mu doon def ñu man ci am gàncax boo xam ne nit ñi dañ ciy lekk bàyyi may lekk ci waaye tamit ñu ma añ ci am man ci am sax loo xam ni dañ ciy doon ab xont boo xam dañ ci dundee ren ba déwén kon loolu mooy li nga xam ni loolu la daara ji di liggéey dañu muñal daara ji comme li oustaz waxoon ba nawet jeex ba ndox mi dem ci biir suuf reen yi mën a dëgër gàncax gi mën a màgg focc ñu mën cee am lu nit ñi dunde man cee am lu euh, bàyyi may di dunde man ci am loo xamante ni ñoom ñëpp danañ ci jariñoo kon lool mooy liggéey bi nga xamante ni daara ji moom lay liggéey bismillahi taala ñi ngi ndokkeel di ko ndokkeel di ndokkeel donga yi ak ñi koy jàppale ñëpp di kontaan ci liggéey bi nga xamante ni moom la liggéey fii ci daara ji ak mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ak yéen ñu ko jàppale ñëpp yal na yàlla fay leen kontaan nañu ci liggéey bi daal wane nañ fi liggéey boo xamante ni incha allahu taala xale yi danañ fi am alquranul karim am fi tamit li nga xamante ni mooy seen njàngum diine ak seen njàngum tubaab ba nga xam ni buñ leen tënkalee buñ leen tëkkalee ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo jàngi feneen leneen danañ am li ñeneen am feneen ba pare am ña nga xamante yoo demoo feneen amuñu fa la nga xamante ni ñoom ñoom moom lay am fii loolu nag liggéey la boo xamante ni bu mat a wane la bu mat a jàppale la ñu ngi jaajëfal mboolem fi nekk ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah